Il doivent être libérés pour que Bassirou puisse participer à la campagne électorale. Le président a fait la concertation des Il faut la concertation parce qu'il faut qu'on se mette, il faut qu'on se mette d'accord sur une nouvelle date pour les élections. Il ne peut pas fixer la date de façon arbitraire. Il faut que les gens se retrouvent et tombent d'accord sur une date. Mais les élections, ce n'est pas une affaire seulement de partis politiques. C'est pour nous les citoyens également. Et donc les élections, nous les voulons au plus tard au mois de mars, n'est-ce pour qu'il y ait une transition pacifique le suis d'accord avec euh, mon ami mon frère euh, Gassama. waaw day fi ñëwoon tey ci manifestation bi parce que am si bokk na ci plateforme aar suñu élection pour wone président de la République que évidemment euh, malgré décision bu am solo mi nga xam ne moom la conseil constitutionnel def te décision boobu di ndam bu rëy pour askanu Sénégal parce que fa tegaat réew mi ci yoon ñu ngi vraiment ñaax. acteurs politiques yi ñaa président pour mu organiser mois de mars ci weer bi di ñëw pour que le 2 avril parce que boobu mooy date bi nga xam ne ci la ci la lay jóge ci boppu réew mi ñu mun a mun a jox léegi ki nga xam ne moom la Sénégalais yi di fal vraiment loolu mooy suñu exigence. dialogue bi waaw dialogue moom mënatu fi am concertation mun na fi am concertation pour ñu mun a ànd ñoom yëpp d' accord ci benn date boo xam ne date bu réaliste lay doon pour ñu mun a organiser les élections. Imam Cheikh Wali Seck imam ratib à Washington président de la convergence pour le changement des comportements donc je suis là en tant que citoyen sénégal je viens de dire donc euh, mon frère Gassama de Transparency International aujourd'hui donc c'est la bataille tous les citoyens doivent être là les khalifes les imams et tout le monde il est vrai qu'il y a un dégel mais je pense qu'il faudrait donc continuer donc sur cette lancée pour que l'ensemble donc euh, des prisonniers politiques donc et que donc on aille vers des élections pour une meilleure gouvernance, puisque aujourd'hui, donc, il y a une crielle de mots qui gangrène notre société. La corruption, la concussion, hein, et ensuite, donc, tout ce qui est l'impunité. waaw maa ngi wax que ni tey euh, imam bi euh, moo fi ñëw en tant que citoyen sénégalais pour ñëw donc ànd ak euh, suñu doom yi suñu mag yi suñu xarit yi pour laaj li nga xam ni donc mooy élection yi pour ñu tenir que il est vrai que donc euh, am na tuuti euh, euh, dégel ba nga xam ni prisonniers ñu ngi commencé génn mais tous les prisonniers politiques donc nañ leen génne ay citoyens la ñu defuñu dara ñi nga xam ni donc ñoo fi nekk sàcc xaalis bi waaw nga xam ni donc pendant deux mandats ñi ngi fi xaalisu Prodac bi ñu lekk ka ñàkk jom naan police moo ma jàpp. mais pas gendarmerie. C'est la différence entre euh, l'IGE et l'IGF. Sénégal léegi ñu mu bàyyi nag du ñu ay détenu politique